ku bëgg am lu kenn amul ci réew mi mbaa nga mel fi nu kenn melul faaw da ngay seeti borom kéemaan mu defal lay xar baax wan lay kéemtaan Serigne Modou Gaynde boroom kéemaan mi kenn réeréewul ci réew mi ci réew mi ñu nekk ak ca bitim réew ñi fi mës a dégg daal yëpp xam nañu barab ba mu nekk ca kër Sàmbaraxi Njóobeen ca Saalum Serigne la boo xam ne lépp lu muy def ci alxuraan la koy teg rawatina ci aaya bi borom bi naan wanu nazila min alxuraan maa huwa sifaun wa rahmatan lil muminin boromi jàngoro yi may bëgg a déglu leen ma wax leen asthme prostate góor yi télé bay teel a wàcc lal jigéen ñu taxaw ñu am doom sëriñ bi da ciy def ñaan yu am doole njabootu seytaane ñi yore faru rab wala sax coru rab ñi nga xam ne wërsëg la ñu bëgg ci bépp fan fathan kabiran ajilan sarian sëriñ Moodu Gaynde borom kéemaan da ciy defi jàngat yow mi bëgg tukki lijjantim kay tëla ci réew mi wala da nga bëgg place place bi nga nekk da nga bëgg mu yokk cër ba nga fa gën a taw fii xa ni nga fa nekke yéen ñi nga xam ne seen ngeen ci réew mi ñuy takki jaaro dooni kilifa ci kenn dong lañu ko ko jëlee moo di kii may bëgg a wax jaaro buy dox ci wërsëg buy dox ci bayre buy dox ci aar la yow mi ko tàkk ba ci sax boo duggee oto di la musal ci l'accident numéro téléphone bi 77 972 98 81 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ñi tekki mbaa ñu man ci réew mi du ñuy gëj këram. yéen annonceurs yi Kéemaan Vision moo ngi ngeen ñew ci Kémane Vision bu def leen ay xewal ngeen am ci mom ay prix yo xamne ne du ngeen ko gis fenn ci Kémane Vision rek ngeen koy gisé yeen annonceur yi yeen ñi jaay wala bëgg ko fessel seen produit ci Kémane Vision pare na pour defal leen ko ci jëg bu mu gëna gëna gëna gëna gën a gën a wooyofee maanaam mu gën a mu gëna a wooyofee mu gën a tampe bi taxee. ñëw leen. saa neexoon yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg ngaayoo bi ci biir kër gi lay xee jàllo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñaan ku la. def nañu ko seeni xol a sedd vidéo yi ñuy dugal ci Vision képp koo nga xamante ni xolam sedd na ah war ngeen a mën a xol ñun tamit ñun ñi les artistes comédiens ak les artistes comédiennes aussi numéro yi ci suuf muy numéro juróom ñu fukki dërëm ba million ko lu am nañu ko defal ci numéro yi Vision ak ay production gis ngeen Baye Góor gis euh, Vision li mu def ci production ba ci sax neex ak local tay da ngeen ni seetaan et puis du ngeen fay dara jaaru na nak wala sax ci saa yu neex rek saa len leen seetaanee xol bu ndaan ndaan rek ngeen jël digënté fukki dërëm ba 100 francs ñu ko ñu bari di di nga maam yene city ngeen defal ñu ko ñun waa waa waa ke man Vision sànni ñu rek digënté fukki dërëm ak 100 francs ba jëm kaw léeg sax ngeen sànni ñu benn 1 million 2 million 3 million 5 million yéna xam parce que seetaan mi jar mako ko kii Vision ci numéro yi ci suuf ah maa yow Ndaya yow koo yëpp ma ba fekk sama biir nii yow Ndaya yow yow. ah yow eh eh. at bi dama war a abu. eh yow Ndaya yow lan maa la yabee yow. waaye ndi yaa ndi yaay ndi yaay. waaye yow yow fan nga nekkoon ba Ndaya di sàcc ci kër gi. lii lan la kay yàlla kay yàlla ma yëpp. yow may ma jàmm nga ne ma kay yàq ma yëpp. lan la Ndaya dugg fii naan day. yow Ndaya yow kay kay kay ban dem kay. Ndaya bàyyi ma yow yow yow Ndaya dama gën a nekk wuyu yow. Ndaya wal waa man lan la Ndaya def. ndaayaan sama néeg bi lay dugg di sàcc ndaayaan tey lay bàyyi sàcc si at bàyyi naka tey billahi taawal ba dem taawal rek waxaan moom ma ñëw ndaayaan yow de ndaayaan yow da nga xam rabbil alamin toog ci biir gi bëgg dof fan yi moom ay daw la jël day téppi téppi rek daw daw ba mu neex ko nga ni ko looy daw mu ne dara damay export mu del si EDRG Njaayaan Ndaayaan geeskat la lu mu romb mu dem loolu lépp ci wet bi jaar na bàyyi xel ñoom dañu xuloo gi dégg bëccëg kenn xamul kuy tooñ sax rax si dolli nag eh, eh, eh, ana Ndaayaan lan la lu xew ana Ndaayaan Ndaayaan romb na ma ba dugg ci biir lan la Ndaayaan tey def na ma la ma métti ah. waaye lan la yow lu xew. Ndaayaan bi tey laa koy waaye balaa ngaa rukk Ndaayaan ak ni Ndaayaan mel wax leen ma lan la. Ndaayaan ndax dugg ma kër. waaw boobu maa ngi si poulailler yi la jox ginaar yi ñu lekk. waaw nday moo nekk si néeg bi. waaw Ndaayaan dugg na ba dugg si mam néeg ba sa ba ne dara sàcc. Ah. waaw nday jàpp nga foofu. non loolu moom la ne mënoon na faa am. non Ndaayaan dala gees du ànd ak waa waaw yow xalaatoo sàcc bi leneen li naroon am ngay xalaat lan ne mën naa xew foofu wax nga ndaa yaan nag tey jii nii non loolu duma ko ci far loolu du fanaan xaara xaar non day fanaan voilà parce que xam nga tax muy fanaan mën nañ koo tàpp làpp ko ci xotti yi ba mu sonn waaye ndaayaan boo ko reyee da ngay def ni nit nga rey fekk reyoo nit te fii ku fi rey nit da fanaani kaso na ma fanaani kaso ah jaral na la ko. na ma fanaani kaso. waaw acca baal ma jënd ndaayaan nga fanaani kaso. voilà jëndal ma ndaayaan. yow yow yow yow yow yow léeg-léeg da ngay réew. yow léeg-léeg da ngay réew doo yaru. Samba woo waaw déggal li ma la wax. jëndal ma ndaayaan eh ndaayaan eh. waaw eh kaay yow. kaay. ndaayaan tey laa bàyyi sàcc. ndaayaan nag na la leer ni. am na foo xam ne boo fa àggee moom maag yow dinañ laale. eh une la. kon kay yow yow am na foo xam ne boo fa àggee ndaayaan dinañ laale. yow kon tey dinañ laale parce que doo rey ndaayaan ci sama kanam. Ah. yow lu ñuy nekk yow yaa ah, aw ay xeer naa la ah, yor xeer daa yoru xeer taxawal daa xeer nii lan ga sàcc lan nga sàcc kër kër kër kër kër kër kër kër kër ñii sàcc moom du waxul dëgg dama lay bàyyi ak ñoom ñu rey la ma rug aw waxal dëgg lan MP mooy lan lan mooy MP rajo yi naaw yi rajo jàmbur bu téewulee la xam dama am carte mémoire amoo rajo da nga am carte mémoire amoo rajo nga jënd rajo nga dugg ba sama biir nga dugg ba néegu jàmbur fekk jabari jàmbur ah boo fa defoon leneen nag ndaay da ngaa bandi mataguñ la sax. Eh, eh, c'est quoi ça loolu. yow tànk bi yow dem rek naayam. Samba xoolal ma ma tànk bi mu dem. voilà. yow damaa fi nga tëjee damaa giñ sàcc. kii dafa ñu nga naan damaa giñ sàcc. bu doon bàyyi kooku ñu ngi sàcc eh, yow waxuma yow waxuma yow yi mel ni cati gaal. gis nga yow sama. terrain ba fa jaarate. ndax yow. ah dafa am yow mën naa am ab tànk ah. Ah, eh, ah bàyyi leen booy bi de. Ah, bàyyi leen booy bi. kon seew naan bàyyi booy bi sàcc yi noonu ñu ñaar ñëpp bàyyi ko la waaw naan ay bàyyi bi ay bàyyi booy bi dafa leen fànn ah lalaanu mën a. dama ne la ndax dañu mën a dara loolu leen bàyyi nekk nii. waaye yéen a ngi ni ku soobee nii di tax a. du ma ma booy bi. sama a wuyu. sàcc yi am na si li dina ma bokk yéen a boo ko sàcc waaw moo ko sàcc moo tay la waaw moo ko sàcc moo tay baasu dem moo tay la ci jàng yow xam nga ne maa la gën a réew allez da ngay dof waaw dañu laa ñuus maa la gën a réew dañu laa sot ñuus la ba réglé ñun ñuus sa ba nga xam ñun ñuus man dama xeex man dama xeex góor a jigéen da nga kay laa ma ma xeex ko ñuus ko xeex ko ñuus ko yéen ñaar ñi man dama xeex góor a jigéen réew ma kër ka fa duggati si yéen ñaar ma toog a jamoo ko jot la bon ay gees man rek ngeen na ma kay na duggati rek ama sel imbécile imbécile di nga xam de imbécile tontul imbécile tontul bande solo tontu. nan dem bande solo tontu. suñu waay doo loolu moo nekke lii yàlla dong moo ko mun noonu. Diallo noo def. Ah, ah, ah non loolu yëpp dafay a ak jël bi afaami man ñaari laaj ñaar ñaari laaj tuut laa la soxla laaj tuut dee. lu xew. dafa ndànk yo yow ñaay yow yow la wala yow agent immobilier la. non yow man defoon naa ne lu nekk nga may laaj mais yow li ni yàgg-yàgg yëpp yoo xamoon ndax man courtier laa wala du ma courtier. oh oh ah, xaw ma dama laa laaj. mais man ngandum courtier la ah, ah waaw waaw bon d'accord d'accord xam nga fa laa man si ndaama laa demoon. ndaa ndaama. yow la nga wut suma kër yi nga am audace non dugg suma biir kër nga taxaw nga woo waa yëpp non nga wax leen ma agent immobilier la plus courtier te pourtant non xam naa adresse bi nga joxe foofu agence bi xam naa ko xam naa ko Kéemaan Imo. Eh. yow la moo sa yoon si boobu man xam naa leen bu baax de. Eh. ñooñu liggéey travail bu jub la nekk foofu. da nga mais eh, attends non dafa. dama la laaj mais da ngay déglu nag. ma da ngaa mos a liggéey kéemaan ino imo. xool bu nga liggéey foofu. da nga may xool bu baax man courtier bu mag laa man talu ma di jël ay turu jàmbur di ko mbubboo yow xool ma dina nur naa la kuy tuddoo. mbubboo ah, ah, turu ah, jàmbur. <laughs> d'accord léegi non la moo indi kon cinq mille cinq mille bi si victoire bi. cinq mille lan. yow nga laaj ku nekk mu génne cinq mille cinq mille. non Diallo xam nga lan la. lan la. am na loo xam sax jarul ñu nekk di si discuter te yow benn affaire nga xamul man om ma jot damay dem mairie am kayit yu muy lijjanti ji te Diallo gis nga sa alal ju bari ji nga am nii. kaari tout xoolal boo mënoon sax da nga koy mbëgg ah. gis nga boo ci lekkul hmm. ëllëg da dee nit ñi lekk ko wala jirim yi jël ko say doom. Ah, kon yow doo si lekk. beneen bi si topp mooy. Hmm. yow Diallo xoolal li nga am lépp. yow fan nga mëna a jox nit rendez-vous ba mëna a waxtaan ak yow. ndax la amoo parce que talo ko da ngay wër di taxawal dur ya ngi gauche ya ngi droite. yow wëro xam nga lan fu ñu dajé ci mbéd non non man mairie la jëm. ah dañu dajé mairie la jëm de. ñuy wër dañu dajé li lijeenti ji ay kayit on ma temps. Ah. bu guddé nañ gissone waxtaan. eh dafa waxtaan naan jaay si nga ñëwé baax na si nga ñëwul ma ñëw. yow fu leen di di ku mel ni ventilo di wër rek di wëndeelu rek. di nga gis suma ah, na di nga gis suma ngelaw. ok amul ma nekk ventilo dinaa la ngelaw troisième laa koy mu nekk loolu lu la ngelaw. da nga nday. saa de am na gan mëgëy jaar nee na dootul.